بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما شعر يوم الأحد شرحت يوم الأحد وبرائه وبرائه لفظ شرحت برائه رد الذي أما جهاتي من عيوب بغير رد لمعلم القلوب وخ من كم بي dana jànkoonte woon ak yu noonu moo xam ñu jëmale ko la ko wala ñu nattoo la ko mu nekk ci yow te du benn du ñaar nekk ay yu ku jànkoonte woon ak moom moo xam ñu jëmale la ko moo xam nga yore ko te tàggoog moom te bañ mu dellu si maanaam leeru bayit wii nga xam ne waxi ku tedd ki la tam bind ko ci bisu dimanche maanaam leeru bayit wii ba munta jàng itam te dégg ko nga am yéenay leeru bayit wi tàggale laat moom ci ay ayib yoo xamante ne bii yoo xam ne daan nekkoon ak yow bu ci àgg moo xam ñu tegle ko moo xam nga tegoo ko te tàggoo nag moom te dañ mu dellu si wa illaa demagul nekk ci ba tey leeru bayit wi eh, ci yërmande ku tedd ki mën na la caa musal bi xayri raddin nag lii muallimul xuyub hmm. radda lazi amma jihaati min uyub bi xayri raddin lii muallimul xuyub hmm. moom la jël ci raawu sharaatu bind ko taawu sharaatu itam taawu maftuha bi xam la wax ne taabiya maha bila rujuhi lii abadan waqiitu jurra juhi waaw fekkante ni daal da nga jànkoon teeg ay coono ay xat-xat waaw tàggoo te bëgg a tàggoog moom da tàkku ci leeru bayit wii waaw ngir mu tàggale laak moom te bañ dellu si ci yow mm-hmm. képp koo xamante ni bi itam nag danga ñàkk loo lekk maanaam ba xiif gi la gañe ak yu deme noonu hmm. leeru bayit wi daal wax dëgg yàlla waaw euh, mën naa tax ba xiif du la gaañ mën naa tax ba ay coono itam du la gaañ taabbiya ñaari bayit wi benn bi am ma jihaat yi bi ci des mu jël taafu sharraatu waaw ndax daf ni charatu yowmal ahadi la wax ci bi ci dimanche kon la ko bind ñaari béy ji moom leen leen di baax ci dibéer ji ci dimanche ji te ji ni ci am daal wax dëgg yàlla lu bëgg a leeral ni rek mbokki talib bi rek taxuñu ndax ku tedd ki pour ñëpp la leeru li muy wax moom ñëpp xaj nañ ci àdduna bi yëpp comme lii leen dem ci àdduna bi yëpp man fexe ba koy leeral ci leeram yi rek waaw leeram yi rek ndax benn xarafam bu nekk leer la loolu bu nu ko xamee noonu rek waaw te fexe ba mu tas fépp rek fexe ba yërmande ji mu ëmbal jaam ñi ñëpp jot ci rek waaw aw jotee nag dafa am communication xew na eh, dayen di fexe rek leer la goo xamante ni bi daal wax dëgg yàlla moom moo ne woon boromam irham jamial wa rahma rabbi amin fexe ba ñëpp jot ci yërmande ji rek ñëpp jot ci leeram yi wakkala